sëriñ boo xamante ne ci ahlu ci leen nga bokk di nuyu bare bari tey ziara sëriñ Talla Seck borom dëkk bi nuyoo bi mu teg ci loxoom mu jàllal ni ko ci bépp kilifa bu toog fii ci baar bi tey ñu yemale foofu nag lim bi alaaji jaase nee na mi ngi sant bu baax a baax a baax a baax sëriñ Papa Bourtada ibnu sëriñ Madické Seck borom yàlla nee na ndax yaakaar na leen bii day yaakaar naa ne day la ca kilifa ba yaakaaroon ba dénkoon ko ko yaakaar naa ne bu kilifa bi jël siyaanoon tey du ci soppi dara na ko sëriñ ba bëggee woon noonu la ko defee ba tax nee na mi ngi koy sant di ko gërëm ndax Baye Dia Sy dafa fekkee lu bare bare bare ndax fii ne jamono di fi daan ñëw dañu daan dagg ay guerre di ko lal ci tëli bi bi ko dañu yendoo puus fa jant bi so ñu soogee si cene ba Kajoor kon am na lu mu fi xam mu bi ñu jiite nag bi ñu jiite bi ñu jiite ba yàlla atte léegi maggaa ni bëgg a waaye nag teewul lu mu metti metti rek ñoog ñoogi na ba ma toog kon nag loolu rek la doon jottali di sant daayira Mutahabina Fillahi bu Louga ah ci biir loolu président daayira Mutahabina Fillahi bu Louga dafa am décoration bu dekorasi décoré kali Khalifa Ndiaye mi di kau xamanteni ki kenn lo ci Serigne Modibo Seck lo xamanteni li man nañ ko sédé ndax kon am fukki at ak juroom ba légui lañ ko gisoon mu and ak Serigne Modibo Seck yalla ak Serigne Modibo dem mu fedd li wax saay Papa Murtada kon nak Serigne Khalifa Ndiaye yalla rek la mëna fay te billahi wallahi ta'ala yalla dana la fay ba bes mujahidin wal mujahidat fi sabilillah ndax man may porte parole mujahidin wal mujahidat fi sabilillah ñanga netto de ay gor yu sepet di ño xamanteni ni ko ñu ko andé ak señu ma diggé ba légui yokatu ñu bis bu nek ñu ñu gëna fenn ni seen porte seen colère seen laxasay di ño xamanteni ni dañu liggé na ci suuf du ñu ci boole ay wax du ñu ci boole bi yëngu fenn tok dañu melni sax bokkuñu ci taalibe yi ndax ab yar bu tar ak volonté boo xamante ni bii lépp loo xamante ni ci kër sa jóoni ko sekk borom yàlla nee la jëm danañ te def seen kàttalaayu kàttan ñu ànd ko moom ba gisatuñ ko ñu ànd wëlbati ko di ko ànd ak seen papa Murtada déglu seen yu dikkee kon nag waa mu jaaxi dina wala mu jaaxi daati gàtti nga la yéen ay gor yéen a baax bu tey doon démb manoon ngeen ne sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi nekkatu fi kenn ku ne doxe ak yitteel waaye keroog ba ngeen gisul sëñ bi keroog ngeen gën a fàttali seen laxasaay yàlla na pour yàlla fay leen bokki jullit yi ñuy nuyu bare bare nag tey ziyaara ah képp koo xamante ne kii teew nga fi waa commission finance fàttewuñu leen ndax foofu it feneen bokk muy ñii te waa commission finance boo ko seggee ba ci biir ñooy waa mujahidina wal mujaahid fi sabilillahi kon nag bokk jullit yi nu bëgg a sonn projet boo xamante ne bii sàkku nañ ci képp boo xamante ne kii bëgg ngaa bokk ci daayira muy daayira seen bët bi nga xam ne moo ko taxawalal boppam na nga ñëw bindu ci daayira bi ndax dañoo am projet yu rëy yu ñu bëgg a yëkkati yoo xamante ni bu ñu sañoon kenn ku ci nekk sa loxo dugg ci ndax bu ñu ko soogee mën koo daal ku soxla numéro bi mbaa nga bëgg a bindu wax rek Ibrahima Diagne ma nga ne toog mooy président bi. Moustapha Sylla di secrétaire général ñoo ngi nuyu ñëpp te ziar ñëpp jërëjëf. tant bi kuñ fi décoré jaadu na waaye wallahi jëmm ji waxuma tant bi waaye ko yaakaar seetlu ci ne ba loo ko defal da nga ko avance ma yóbbu ko yàlla yàlla guddal sa